man baay Fall laa. Mhm. jumaa ji mu ne woon Tiwaawan sax neex ma. mu nekkan Njaasaan neex ma. mu mhm. nekkan Cenaba neex ma. mu mhm. nekkan Ñaseen neex ma. mu nekkan eh, eh, Jaamal neex ma. nit ku bëgg yàlla wërte bañ dara yàlla ci barab. dëgg la bëgg nit ak bëgg yàlla bokkul boo bëggee nit nit doo mën a gàllankoor sa digganteeg nit. ndax wala xati gërëm naa ba ni Adama ku ko gëm di nga xam ne ginnaaw yàlla nit. yàlla des koy topp waaye jaamu yàlla ci jaami yàlla yi. nit boo ko ëppee doole da nga koy yërëm mhm. boo mënee dem da nga koy nekk mhm. boo ko tanee da nga koy dimbali jullit dëgg-dëgg noonu lay mel mhm. waaye nag julleeg woor sàkka saka nattu mulu ko aj màkk saraxe yooyu dañ la koo sant ñu war koo def waaye am na lu gën a gaaw loolu nit day laab nit day nanguy doxal nit day fekk nit ci lu baax nit day fekk nit ci lu mu lu mu wërtane mu fexe ba génne ko te yooyu moo di njullit laabal xol yi yéeneen te jàmm ànd di def jàmm bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggaale gaa ko wóotu taleexa nag léeg-léeg nga dégg ko ci wax man leen ndey ma baaxul rek nit lu mu jàng jàng. te soo moom nàmp leerul bu waxee wax ji du leer. mooy ñi nga xam ne dañuy topp di ŋaññi. waaw mhm. ku sa ndey baaxul sa sa kàddu baax. Mhm. may waxee wax ni doom bu jaayee personne day ma lekk bénéfice am ku yéeg sori kaw sa ndey la yóbbu ku dem dem noo dem sa ndey la wàccee. Ah, loolu yéeme na de. borom ndey yu baax yëpp normal. koo fi gis bu waxee ñu sa saboote ko ndeyam baaxul. ak sa wàllu yu boobu soxlaam sax du mën a am doomam. Mhm. góor aw jiwu la jigéen tool la. bu tawee ba tooy nga am kemb gu dijji gu rafet dem ci suñu jicca muy taw ngay béy doo am gerte doo am ngooñ mhm. jigéen ñi ne ci am ñoo xam ne tool yi tocc lañu am ci ñoo xam ne ay sën lañu loo ci ji lu baax <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah